alhamdulilah alkarim silmil nan ala stighaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu qad saxani li watani bihi nafa ma anfani wa hadani li hayasa minni laahu inda jeewali ibli sayna daytahu biya wali di leen sant di leen gërëm di leen yëgal nag ne yoon mu ngeen fi masaa ñëw rek yóbbante naa leen leen a fi man tey nag yóbbante wu ma damaa bëgg ngeen toog seere li nga xam ne ñu ma siqal war a wax ñoom maa ngi koy wax ak ñoom ngeen may ma rek dégloo ba li ma war a wax lépp ma wax li may jëkke moo di kilifa yi diine yi fi tase te ku ci nekk bàyyi ay yitte bàyyi am njaboot bàyyi kër te dara yëkkatigu leen lu may fas judoo lillahi wax guddoo rek di nga xam ne moom la ñu nekk fa ñu dëkk loola rek leen yëkkati indi leen fii maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen xamal ni leen bi seenu pay de moom awu ko seenu cantik lott naa ci waaye nag yàlla moom am na lépp kon yàlla na leen fay yàlla na leen gërëm ci dimbali mu walbatiku nag nuyu sa sama bokki ba yi nga xam ne sunu yaakaari ëllëg yeesuwut Sëriñ Tuubaa sunu gannaaw bakkan amuñu na lu ñuy daariloo mën caa teg baaraam lu dul Sëriñ Tuubaa bala maa waxtaan ak yéen nag dafa am luy jëkk dama bëgg nu bokk sant yàlla gërëm ko ngir yàlla kat dafa wax ne bu ngeen ma fàttalikoo ma fàttaliku leen ren nag wóor na leen ne yàlla fàttaliku nanu yàlla nag bu la fàttalikoo ba noppi la ngay fa la nga koy fàttalikoo moo di la mu santaane nga def ko yàlla dafa wax ne wa aatoo xaqahoo yow ma xisaadihi wala tusrifoo nawet moom xam ngeen ne kenn mënu koo may sa bopp ku ko am wóor na leen ne yàlla la ko may wóor na leen ne ren yàlla may nanu ko kon nag nan sàmmonteeg li yàlla santaane def ko góor góorgóorlu leen ci asaka yi def ko nam ko na ngeen ko war a defee na sell te li ci def si ngeen bañ koo yàq ndax yàq kat yàlla tere na ko waaye li ma koy tere tere da cee dolli ni buggul ku koy def loo xam ne nag yàlla da koo tere ba noppi bañ ku bañ ku koy def mu bañ la loolu daal ku ne war na ko wattandiku wattandiku leenu yàq nawet bi mu ngeen ko jariñoo ci ni ko yàlla santaane génne ak yàlla ji li ci def ngeen téye ko te bañ ko yàq dana barkeel ci seen loxo te amaana it yàlla bu dee tee def da leen da leen di gën loolu laa jëkk bëggoon a jëkk a waxtaan ak yéen ginnaaw bu ma leen santee nag ci jóg ji ngeen jóg yéen ñëpp bàyyi seen yitte ñëw fii ngir bisub sëriñ tubaab bi kenn ku ci nekk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 waaye nag mursal moom du fi jóg seen saa ngir képp koo xam ne boo dee wax ñëpp ne tekk di la déglu morsal nga ci ngay waxal ku ñu yónni nga ci ña ngay waxal yàllante nag nga xam ko mbay wax loo xam ne njëriñal àllaaxira dina ci jóge njëriñal addina di ci jóge ngir addini ak àllaaxira dañu fee bokk ne lu ci ne am yàlla lu am lu ci yàlla santaane wabtaxi fii ma aataka allahu daara al-aaxirata loolu la sunu borom wax loo am sàkku ci sa kërug sa kërug àllaaxira wala tan sa nasiibaka mina dunya surtout ci àddina it bu ko fàtte kon nag kuy wax ku ni war leen wax lu leen di jëriñ ci àllaaxira war leen a wax àddina kon nag ma leeral leen ni leen doomu aadama yi li ñuy bari bari yu jëkk yi ak yu mujj yi ak nun ñe ñeneen ñuy xalaat bi ci ñëpp yowmal xiyaamati kenn ku ci ne danga nga wéet ak yàlla ba mu defe ba defee ne yow dong la sàkk loolu yàllaa ko wax wa kulluhum wa aati yi yowmal xiyaamati fardan wax na it ginnaaw da ngeen di ku ne dana dikk fi moom nag ku ne nag la nga indi aale lam la ca war a defal ak lam la war a def wax na ko te def defal ak def dañoo niroo waaye bokkuñu innahu man yaati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wala yahya ku dem ci sa borom te yóbbaale fa ak tooñ jahannama rek la la yóbbu wa man yaati si moom naan xar amila saaliati koo xam ne yóbbaale dafa ak gëm ak jëf yiw fa in fa olaayka lahum la leen di defal daraja yee gën a kawe kon nag nun murit suñu gëm yàlla ak suñu jëf jiw lépp dellu na ci sëriñ Tuuba la wéeru na leen wóor cëng ne sëñ Tuuba la nu jaayanteel sëñ Tuuba la nu topp sëñ Tuuba mi nu top nag ku topp ku topp ci moom ci yonente bi nga topp danaa joxe li ko waral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 bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy sëriñ Fallu bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy sëriñ Mouhamadou Lamine bi ci keneen toppee yonente bi la ko tuddee muy sëriñ Mouhamadou Bachir koo xam ne koo jur tuddee ko ko nag wóor na la kenn keneen amul ci yow objet loolu kenn nattabliwu ko jox na ko léppam doore walbatiku nag moom ci boppam moom sëriñ Bamba Sall la tuddan Momadou Bamba sal lañ ko doon wax ci ak ndaw ak daana ko bind sax ak di bind Sall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 sax nga naa subhaana la si asra bi abdihi lay wax muy rasulullah loolu rasulullah di koo xam ku ñëpp di liggéeyal la ndax yàlla dafa fa mboolem li am njariñ teg ko ca loxoom kenn ku ne am loo mënta ñàkk ci moom di ko wut kon naka jëkk di su ko liggéeyal masi masi su ko noppee xëyee la ko gontal ndax ku ne am na loo mënta ñàkk te mu jox ko te ci moom dong nga ko mën a jël waaye moom nag mu wax na bëgg ci yonent bi lenn taxutoon mu di ko liggéeyal ñaan ko lenn taxutoon mu di ko liggéeyal lenn lu mënta ñàkk sax mu doon ko liggéeyal amul daxaani li ixdaami nabi hubbu saatihi daxaani ilaamati nabi hubbu saatihi liggéeyal gi mu koy liggéeyal ak tag yoon koy tag yëpp bëgg jëm ji rek la dara doolu ji loolu it wéral na ko ndax bind na ne mahat mahabbati yal muxtaaru sayiduna hubbil maxaani wal ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaadi fidaau lahu xarban xadiman lahu muskaana li sanada loolu ko ku bind deseeloo kooka lan kon seene ci yonent bi kon di gëm a yonent bi natteeb li wunu na ku ko jàpp rasulullahi nga jàpp ku jàpp rasulullahi yàlla nga jàpp ma xamal leen nag ne leen murit ci boppam nag moom moo amut aw tur rekk la loolu na leen leer murid aw tur la sëñ Tuubaa mooy jëmm ji tur wu ne jëmm lay wut lay woo koo xam ne bi nga ko jàppagul doo tudd murid boo ko bàyyee doo too tudd murid bu ñu la dee wax murid moo tax loolu gën na tabaliwu ko nag mu leer leen ni leen li mu jëflanteeg taalib yi lu lu leen leer la lu ngeen war a xam la dafa wax ne moom day fam mbooloo tofal ko nit li muy def ci nit mbooloo topp ko bu ko defoon ci garab nit ñi dëkk wër ko te duñ fa jóg li muy def ci nit toppees ko itam def ko julli ñaari raka moo ko ko gën a jafe kooku kon mel na kam doon liggéeyal dëpp na dëpp na ko kàttan te loolu li ci firnde moo di dëkk murid boo gis ci àddina moo ko sanc ndax moo joxee tur moo jox kooku suuf ne ko foo bëgg mu yàgg fa yeggale ko ñii dañoo far bi fas takk ko yónnee xeb la gën a yóbbu ca suuf ñu nga xam ne ñi seen xalaat yëggul foofa ñu fab ko suuf ci seen dëj am na ñoo xam ne suuf sam leen jox dañ ko denc ne dañ bu jëlee yóbbaale ko waaye benn murid bu dëkk fen bu ko ndigalam dalul foofa amut kenn ko topp kenn nit koo xam ne du sëñ Tuubaa tax mu topp ko ko loolu na leen wóor yàlla def nag bi loolu amee kon nanu waxtaan ci digganteem ak àddina àddina yett rek lan ci gisam mu jite woo ko amatul yenteel taalibe yi ko topp te yaakaar ko te mu dëgg ci ñoom ku mu ci mas a toogal wan na la ci boppam wan la ci sa digg yàlla wan la ci sa bopp lu tax bëggatoo di kenn benn taalibe bu bëgg di moroom mu amut ngir la mu xam ci Sëñ Tuubaa mu xamal ko ko ak lam mu ko won ak la mu ko dal bëggul di moroom loolu wóor na ñëpp kon nag boo xamante ne benn taalibe bëggatul di sa morom te la mu la won moom nga gis ba tax na bëggatoo ci kenn kooku kon won wane na ne liggéey ci peel bi moo doon wàllam ci àddina li ci daal yi mooy alxuraan alxuraan dafa wax ne yowmal xiyaama ci kenn ku ne sa pàgg tiifu àddina dañu koy indi jóor ko nit ak jinne ak malaayka ñëpp gis ko ba ma xamee loola laa def alxuraan muy sama pàggu téef moom mi jóge ci yàlla jëm ci yonent bi ci jëlu sa loolu moo waral mu daa ko bindu di ko jàngul dëkk bu mu mos a nekk ci àddina kaamil bi bu ñu xëyee jàng ko yaari yoon bu bëccëgee ñu jàng ko yaari yoon fu mu mos a sañ ci loolu lañ fay def banjaare bi ngeen loolu du fa jóg tey jii Tuubaa ji juróom-ñaari jàkkaa ngi fi yoo xam ne jàkkaa ju ne bés bu ñu ne daañ fi jàng ñaari kaamil bi suba ak benn bu tisbaar ak benn bu takkusaan jënd gu te dëkk bi lee mu am téeméer rek waaye loolu jënd gu loolu kon won na leen ne moo séddoo alxuraan mel na yit nag ne séddoo ju mu séddoo alxuraan am na lu ko ci yàlla jox loo xam ne yaakaaruma ne jox na ko ñëpp ngir toog ne fii ni benn taalib bi ci taalib yi xam na turam xamul santam xam dëkk ba mu dëkk bind ab kaami wutal ko jëfira am ko ci malaanum séer jox ko kenn ma sa gis nag mun na ngoo mun na ko ci loxoom lenn lu lu kaami lu ko nit ma sa jox tegal foofu la lay wax nit sax mas naa ñëw jënd bu gura jox ko mu ne ko loo ci jublu mu ne ko damay dégg ne bëgg nga mu ne ko yóbbul daal di wërlu kër gi ni fu fi gura nee nañ ko génnee man di suma mandargal ci bëgg daral dul yàlla yonent borom kaamil boobee dafa dafa taalal kaamil bi sëriñ bi téye ko ñaari loxoom ni ko ah, yow de sa kaamil bi wow na lool fa farixan kasabtum ji ci suratul baqara rek nga fàttee sadda wallahi xasin bañ ko ubbee noon la kon ngeen xam ni alxuraan la fi nekkoon ci àddina benn li ci des nag muy tuubaa ji nag tuubaa moom juróom yaari at la fi dëkk ñu jële ko fi dellu si at yu fi ba wuy ji boromam waaye diir bi li muy nekk ci àll bi mi ngi naa rabbi stajib waltu ko mil maana waytu rada tuubaa la fi bi katumna fii ka budyaana mu ngi wax yesir jooxi li Tuuba wax mi ni waxi ne asawara wal kutub li sama iskaan ku mu juri fi la fi la la dëkkuloo fi nga yaroo fi nga jànge fi la ñëpp am dëkk waaye nag tubaranke gone day am na ci dëkk bi ndax man mi di atum kayit ga la fi ñëw ba léegi fekk naa fi ci suma bët bu nit dee jàpp ay ay ndongo di ko tartan di ko naan ngir ngir ñàkk ndox fekk naa fi bu jigéen dee sebati ay ronga du koy wër di ko ñaan feebar na ngir bëgg koo naan mun naa leen du ma leen mën a jox lépp ngir dama ci wëgg sama xar loolu fekk naa ko ci Tuuba ji toog naa ci Tuuba ji itam bu bu luy xuy guddi du ko sàkk lenn lu may wax day daw yooxu ne daa jom lenn luy leer day su ko gis loolu loolu fekk na ci Tuuba ji ab sanc nag balaa ka juddoo ci sanc ba mënut xam na neexitu sanc ba mel waaye ka bàyyi ko woon ca gent ba ñëw ci sanc ba lu yokk ci sanc xam na ko léegi nag Touba li ko sëñ Touba doon fonk fonk li ci njabootam gi doon dëkk dëkk li mu fi ñibbi si ñibbi si ñëpp a ne fi gisuma gisuma lu ci dolliku ci biiru moomagul suñu bopp lenn ndax gis naa rek weesu wutan di village ci biiru kàndom jaraaf yi fi dëkk xam naa fi jaraaf gi ñu wax ma am kootar mbët saw ca mbët ci lu laa ko fi tegoon xam naa fi jaraaf gi ñu wax mbaar xam naa fi jaraaf gi ñu mbaar boobu ma xam dëkk weesu foofu waaye loolu lépp tëriwut nag mooy wax ne kataballahu tabaraka wa taala ana dawlata nasara in taqalal nu huna min aydihim ila aydi xëyihim nu di ko jàng di ko gis ndu noo xam lu fi fii moomeelu nasaraan yi dana doxoo fii ci seen loxo nekk bi yeneen i loxo xamul woon ñoom tey nag bi réew mi moomee boppam ñaari présidence yi amagul ci li ma gis bu jëkk bi li mu def ci rëccu gis naa ko ndax kàntangu kayel ak kàntangu laa ñooy dëkk département yu léegi am département lañu ko tuddee am na fi ñaar fukki at def na ci ñaar ci forage kon mel na ne at mu ne forage la fi def gannaaw boobu ci bàyyi ko ki ko fi wutu juróomi yaari at la fi amagun dolli na ci fanweer ak benn ci lu ma wóor comme neex booy baw ñënd sama Tuubaa jii itam man du ma wax lu ma leer lu ma leer rek laa ab forage la fi ñu. alhamdulillahi alkarim silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu li an xad sahani li watani bi nafa ma fani wa hada